مالكي مضطرا إني أخاتب النصارى ترا في أرضهم لمالكي مضطرا تيخنوا بأنني لله عبد خديم لرسول الله وأنني ما زلت ذات بر من بالكفر ذات جري ولا أداهن ذوي التنصر ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar di jiital ci nuyu bi Ibrahima ak ziar bi. ne tey muy jëmmi Cheikhuna Ahmadul Khadim ci kaw suuf muy Cheikh Sidil Muxtaar Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ibnu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Mustafa maa ngi ñaan kenn ku nekk ci saal bi nga wax Cheikh Sidil Muxtaar yàlla na fi yàgg ci wér Cheikh Sidil Muxtaar yàlla na fi yàgg ci wér nu di ko ziyaare di ziyaar mboolem njabootu Serigne Touba gépp di teg ziyaar bi nag ci loxol Cheikh Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadou Bassir le prototype di Mouride Sadiq ni ma koy waxee waaye nag di ci jiital sunu jëwriñ ci barab mu jëm ji nga xam ne Ibrahima moom la Cheikh Mouhamadul Moutada góor yàlla al mujahidul akbar l'avocat des immigrés le défenseur de l'islam moo woon ni ko Cheikh Mouhamadou Fadam mu ne ko Mbàkke mu ne ko yaa ko de ci barab ndax ñu ngi jël nuyoo bëpp di ko teg ci sa loxo moom Serigne Abdou Latif moom Serigne Afé ko ci mu àggal ko ci mbokk Abdou Mbacke ak sunu sëriñ nag sunu xarit sëriñ Fallou Moussa moom soxna Mame Moussa mu Cheikh Mamadou Fadal di leen jox ñoom ñëpp seen wàccuwaay di leen siyaare di leen sant ci wuy si bi di sant soxna yi a ñaan leen rek lañ leen sas ci biiru Serigne Touba bii mooy dégloo sañ say jekk na tubaarkàlla waaye déglu rek ngeen may sarax gi jëmmi Serigne Touba defal ko addee ak kenn ko ci saal bi nag nu ngi am mbégte lool ñëw ci bis bu am ay mbokki taalibe Cheikh Ahmadou Bamba xaaj taalibe Serigne Touba Xaadimal Moustapha ñoo na su ci buum bokk ndey bokk baay dajaloo ci bis bu am solo di waajal bis Ibrahima waa Touba Brescia ak waa Touba Veneto noo daje kañ la ñu daje le 25 aprile una data importantissima nell'histoire della nostra Repubblica io direi la nostra perché è la nostra tey jii l'Italie tagg bu mu jaama sànni

Thank you.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

ألم أنه هرين ولسانا وصفتين وأديناه النجدين فلا قطع الحقبة وما أدريك ما الحقبة فقل رقبة أو إدخال في يوم ذي مسخبة يتيما ذا مخربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا

come la mamma di Sheikh Ahmadu Bamba Khadim Rasul, nostro sceicco. Allora, perché non ci aspiriamo a questi bei insegnamenti e li assicuriamo per poter, per avanti pace e sicurezza? Basta pensare al nostro saluto, assalamu alaikum, che significa letteralmente che la pace sia con voi cioè che tu, i tuoi vicini, chi ti sta intorno, la tua famiglia, tutti siano in pace. Mohammed è stato il primo che si munito di un carattere genuino, diceva, abbiate pietà di tutto ciò che c'è al di sopra della terra, e lui lassù avrà pietà di voi. C'è un episodio esemplare in cui un vicino di casa del profeta aveva la ogni Thank you.

tutti. Buonasera a tutti. Io mi sento un po', diciamo così, in difficoltà davanti a tutto questo pubblico meraviglioso, bello, educato, di prendere la parola. Però, come sono stato incaricato, sono anch'io davvero emozionata di essere oggi qui con voi e ringrazio chi ha fatto l'invito che mi ha consentito di partecipare a un momento molto importante per la vostra comunità ma anche per la nostra comunità che oggi cade questo evento importante in una giornata che come ha già anticipato il sindaco di Esana per noi molto importante, il settantesimo anniversario della liberazione il termine di una grandissima e pesantissima guerra che ha costato molto al nostro Paese e che noi non vogliamo mai dimenticare, per non dimenticare quello che ha, portato. Noi non possiamo quindi mai dimenticare e il fatto di ricordare questi eventi molto dolorosi deve sempre tenere vivo nella nostra memoria quello che non dobbiamo fare, gli errori che non dobbiamo fare, perché sono l'opposto di quell'amore e di quella fratellanza di cui oggi voi eh, fate parte in questa comunità anche di preghiera. Allora io, che non sono molto brava, volevo salutarvi con un assalamualaikum anch'io per far parte di questa comunità preziosa per la nostra comunità, perché è un'unica grande comunità. E prima dicevo a Pap, che è il mio collega in e con cui lavoro da qualche anno, prima con incarichi diversi più lontani, oggi insieme più vicini proprio a Padova, Rovigo, in queste due province dove noi abbiamo la rappresentanza insieme. perché queste donne sono veramente strepitose, sono bellissime, perché io mi sono vestita in fretta di, nero, no? va, sempre bene, però i colori che voi portate sono veramente i colori del sole. Noi rappresentiamo il sindacato, che è una comunità di lavoratori, voi la conoscete bene, chi vive in Italia conosce il sindacato, conosce la CISL. E il nostro è un sindacato che che si vanta di raccogliere tutte le differenze al suo interno, cioè le diversità per noi sono la grande forza, la pluralità. Il nostro è un sindacato che è apartitico, che è libero da qualsiasi partito, da qualsiasi vincolo e si considera un grande sindacato autonomo che raccoglie tutte le disponibilità, tutte le intelligenze e tutte le persone che vogliono lavorare insieme per migliorare non solo il mondo di lavoro ma anche la comunità. Quindi le nostre porte sono sempre aperte, non solo per i servizi che possiamo dare, ma per allargare culturalmente anche il mondo del lavoro che ha molto da imparare, anche da queste differenze. E quindi l'invito è di eh, invitarci più spesso a questi momenti, perché anche noi abbiamo bisogno di imparare imparare quanto spontaneamente in questi momenti che possono essere di condivisione e anche di preghiera ci si può conoscere meglio e condividere di più non soltanto il momento del lavoro, il momento del tempo libero, ma anche il momento dell'amore, della fratellanza e della preghiera. Buona giornata a tutti e grazie. أسير مع الأبرار حين أسير وزن العدا أني هناك أسير مسيري مع الأخيار لله بالنبي وما لي لخير الله عود مسير يسير بي الجسب الذي خادني إلى كريم عليه góor لي بأقلامي وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو شكور نصري وتايدي وحزي لدى العدا من الواسع الوهاب فهو نسير أميري لدى سيري ومفي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير أجاري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير نزور يا كوني عبد ذي العرش وحده خديما لخير الخلق وهو النذير يجيرني الكافي به من ذا العدا ومن كل زور in وهو جل مجير مزير يا كوني عبده خادم النبي وأمر البرايا لله يسير عبد الله وهو شهير سطاري في الدار لمته محمدا بنظم ونزر وهو النعم زدور بزوري كتاب الله وزندي التي بأحتمي عما نحاه بزور قصوري خلت والأهل عني تفرقت لمده الذي عنه المدي غشير خصاري خلل والأهل عني بالمدي الذي عنه المدي خسير غرار ولا غر النصارى بقيده وزن الظنون عوز زنون غرور لرب التفات لا لهم تائبا له من الذنب والآفات وهو غفور له تبت من عيب التفات لغيره ومني له عهد على يدمي siyaar bi gën a sell fas yéene yëkkati kàddu yi nga xamante ni sunu jëwriñ sëriñ Dame Mbaye di jëwriñu fédération Touba Veneto bi moo ñu ko sant ngir ñu ubbee waaye li koy sant itam dafa am kàddu cant yoo xamante ni dafa ni naa ko jiital ci ay kàddoom ndax tey jii dañoo gis loo xamante ni dafa kawe sunu njort ndax li tax mu kawe sunu njort mooy dañoo naal bis bi di ko waaj am luñ ci yaakaar doon xaar ab dëkk daal di gis am réew mel na ni màggal wala ak cant miin nañ caa gis fukki kaar di fa daje te cant yëpp cant gu mag lay doon waaye fukki kaar départ ci benn dëkk ñoom ñëpp ànd jëm ci benn bërëb tey lañ ko mës a gis. tey lañ ko mës a dégg itam. dëgg loola nag daf ñuy fëddali di ñu dolliwaat ak cant ci liñ doon làmbatu ndike loola. ndax bi ñuy ànd ci yaatal gi nga xamante ni waa Brescia ñoo ko sàkku jamia wax ni nii ñu daan waajalee auto juñu bi ren dañ koy génne. ñu nangu ko bu baax a baax sant ci yàlla te xam nañ tam bi ñu koy sàkku sakkuñ ko ci ak tële waaye jubloo yaatal liggéey bi rek moo taxoon ñu di ko def ñu ne kon nañ ko def ngir jëmmi sëriñ tubaa jëmmi sëriñ tubaa gi itam mooy kenn ku ne xam ne itali mboolem diaspora bi foo fi tudd yëngu ci yoonu murit ñu ñoola man loolu la yàlla dogal mboolem diaspora bu ci Italie mënee itam boo ñëwee ci réew mi fu ñu fi yëngu ci sëriñ Touba doo sañ joxoñ kenn teg ci Brescia loolu la yàlla dogal loolu nag biñ ko gisee xam ne dañoo ñëw rek fekk ko fi dañoo gis ne kon tànnub Serigne Touba la ndax béréb bi kat mel na ni kenn du dëkk ci bërëb bala nga fonk ko ba mu jaral la boo wàccee liggéey ñu ñu denc la ci bërëb boobu kon sëriñ bi bi muy tànn Brescia am na lu tax du jëmmi dëkk bee tax waaye mbooloom ñu fa naroon a dajale ak lem leen jubloo liggéey loo mboolem ñi fa nekk itam ñu gis ne kon sëriñ bi moo leen fa dajale ci coobareem am lu mu leen nam am lum mu wane ci biir liggéey bi te loola dafa fidd li ko tey ji mu mel ni oto juuñoo buñ ko amee fii ci réew mi am ko Brescia ku gàtt xel da nga yaakaar ni waa Brescia dafay noppale ci ñoom rek ñëpp di leen fekk si waaye coono yi ñu daj tey ba yegg si fii duñ ko daj ba dem ci bërëb bi ñuy defee oto juño bi ndax duñ jël mukk fukki kaar di jëm ci bërëb bi ñuy defee oto juño bi loola li muy tegtale mooy ottu juño bi bu ko sëriñ bi tànnoon fenn danañ ci ànd ak sëriñ bi ci ab tànnam kon loola ay tàggu kàddu cant la yoo xamante ni sëriñ daam waxoon na niñ ko ubbee sant leen ko bu baax a baax ne jëf ji kenn mënta neex baat wala nga mën a soññe ba oo mbooloo ni leen damaa bëgg ñu dem bërëb ne leen fukki kaar laa bëgg am ko kon li tax ngeen ñëw xam ne ni jëmmi Serigne Touba la Serigne rek ngeen di damantal ci jotaay bi waaye du jiwriñ ju mën a soññ wala koo xamante ni dafa neex baat bay wax Serigne Touba mi ngeen di ut si fii nag yàlla nañ ko bokk am jéego yi tax ngeen jugitam ngir yaatal te sunu borom moo ko santaane ci alxuraan sëriñ bi digle ko sëriñ Mourtala mi nga xamante ni sëriñ bee ko yaatal loo ab liggéeyam ci diaspora bi doon ko soññee mu mel ni jafe na lool waaye mel na ni nii ngeen def de ñëw. bu ngeen ko bàyyiwul bu soobee yàlla ñëpp danañ dajaloo ci benn kàddu danañ dajaloo ci benn doxin bu soobee yàlla. kon yàlla na jotaay bii doon tàmbali yaatal bu barkeel ba tasaaru ci réew mi ak diaspora bépp ba lépp doon far doon benn ñu ngi koy ñaan yàlla bu baax jëf ji nag fi mu ñu toll neexut a xam dañ ko doon ubbilee sëñ daam rek eh, ngir moom dana ci delsi bu baax a baax bu soobee yàlla waaye nag bu doon am na soññee ñun ñii ne fii ñu wuyu si ñeeg ñii fi wuyu si jugee Brescia indi fukki kaar di oote bés bu ñëwagul loola du ay wax oowuñ ci ay wax dañoo jëf kuy oote nag jëf-jëf ju nii ku koy wuy da ngaa war a jëf jëf ju tool toll wala ju ko raw kon juñ euh, ju rëy na waroon xel na ñu waajal bu baax a baax ci liñ ñuy oo lu ñu fi indi ci ay kaar buñ ko mënee euh, ñaar ci loola sax ñu ñu waajal ko ku daan demee benn kaar benn dëkk bu ndaw na fexe am ñaari kaar ku daan am ñaari kaar na fexe am ñeent ngir lii ñu ñuy oo ñoom dañoo wuy si ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa nañu dem bu euh, ca oto juñoo bi ngir jëmmi Sëriñ tubaa yakaar naa ne danañ fa dee ak Sëriñ Tuubaa bu soobee yàlla jërë ngeen jëf rahmaani rahim wa sallallahu wa sallam ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaara bu baax di leen baal aq di leen balu aq leen ndokkeel bu baax a baax ci jataay bu sell bi di ñaanal Cheikh Sidil Maxtaar mu yàgg fi te wér lool ak dongo yëpp di ñaanal ay jëwriyam sëriñ Muntaqa sëriñ ba Bachiru ñoom ñëpp ñu bokk fi yàgg te wér ak njabootu sëriñ Tuubaa gépp di ñaanal suñ ciru bopp sëriñ maam Moor moom Cheikh Mouhamadou Mourtala mu yàgg fi yàgg fi lool te wér ndax moom la sëñ bi tànn teg ko fi suñ kanam bépp taalibe bépp murit bu nekk ci biti sëriñ Mamor moom la la sëriñ bi moom la sëriñ bi teg ci sa kanam muy si jëwrin kon nag jataay bii bu amee dana jaadu dana yell ñu fàttali ko bu baax a baax te ñaanal ko bu baax mu yàgg fi te wér ba jéego yi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mourtala tàmbali woon na ko fi teg ko ci loxoom teg ko ci suñuy loxo suñ borom kàttanal ko ba mu eggale ko fu kawe njortam barke borom Touba ñoo ngi ziyaare kilifa yi fi teew yépp di jiital ci ziar bi sëriñ maam Cheikh Anta moom Cheikh Mouhamadou Moutala di nuyu bu baax sëriñ Fallou Mbacke imam ak kilifa yi fi nekk yëpp bàyyiwuñu kenn xëy na mënuñoo teewlu turu ñëpp waaye buñ ci tuddee ñooñu rek dana ñu yem waaye daal ñoo ngi ziar di leen sant bu baax di am mbégte ci seen teewaa fii ànd ak ñun liggéey bi ginnaaw loolu ñoo ngi siyaar bu baax a baax jamaaya waa jamaaya Brescia li ñu leen ameel ci siyaar ak i cant ak i ngërëm suñ làmmiñ def cee lott lool ndax suñ xol dafa sedd bu baax ci jëf ju réy ji nga xam ne jëf nañ ko taxawaay bu réy bii nga xam ne am nañ ko ak njàmbaar gi nga xam ne am nañ ko ba bis bu toll nii ku ko yàlla suñ borom teg ci sa loxo ci barkeb sëriñ bi nga am dëgër ak njàmbaar ak ñeme bu day ni génnee ko sëb dëkk yóbbu ko feneen loolu ak taalibe dëgg lay wone ak njàmbaar dëgg lay wone bëgg a boole taalibe sëriñ bi loolu lay wone jëwriñ yi nga xam ne ñoo jiite jamaaya Brescia dégg nañ bu baax a baax fa sëriñ Muntaqa Mbàkke di waxee eh, sëriñ Seydil Maxtaar fi muy waxee nga xam ne li ko ñor mooy ñëpp jullit ñëpp àndandoo nekk benn te mbay ci sewewu tànk kon ñoom dégg nañ fi sëriñ bi waxee bu baax a baax yàlla na suñ borom dëgëral leen yàlla na suñ borom subhaanahu wa taala dolli seen kàttan yàlla na suñ borom subhaanahu wa taala leen bu baax a baax ñoo ngi nuyu bu baax a baax tamit borom xam-xam yi nga xam ne teew nañ fi bu baax sëriñ Fallou sëriñ Fallou Boussa sëriñ Fallou Boussa Tamba di suñu wëllëre di wëllëre taalibe yëpp ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu bu baax a baax tamit eh, conseil bi nga xam ne ñëw na fi di am mbégte di ko sant bu baax te xam ne siggil nañu bu baax a baax su fekkee woote nañ bis bu mel nii mu dagg ay yitteem yëpp ñëw ak xat-xat yi mu nekk eh, kon sant nañ ko bu baax a baax am nañ ci mbégte bu baax te eh, siggal nañu ñu ngi ñaan suñ borom subhaanahu wa taala dolli koo dëgëral moom itam te eggaleel ko euh, ay yéeneem barke borom Touba. kon ñu ngi sant Jamhiya Brescia bu baax a baax ci taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ak liggéey bi nga xam ne euh, def nañ ko ba suñ borom dogal ñu indi ñu liggéey bis bu toll nii. li nga xam ne moom lañ leen ameel ci ay cant niñ ko waxee rek euh, suñ làmmiñ lot na lool ci ci ci tudd ko waaye nag Serigne Touba mi nga xam ne moo tax ñuy jëf yal na yal na leen fay lu koy njort yal na leen fay lu koy njort te jàppale ñu ñu itam ba nga xam ne lii ñu ñu indil taxawaay ba ca war ak jàpp ga ca war ak tontu la ca war suñ borom dañuy dimbali ba bañ mën koo eggale incha allahu taala ñoo ngi sant bu baax a baax. waa fédération Cheikh Ahmadou Bamba Touba Wénéto bi nga xam ne ñoom itam seenu njàmbaar ak seenu taxawaay ak seenu melo ak seen bëgg boole taalibe yi moo tax bis bu mel nii ñu yelloo ko ba waa Brescia jox leen ko kon ñoom itam ñu ngi leen di sant bu baax a baax di ca jiital Serigne Fallou Mbacké moom Serigne Cheikh Atta moom Maam Mor Borom Sam di ko sant bu baax di ko bégee te xam ne Wéréto gi liñ fiy liggéey lépp yàlla dogal na ak njàmbaaram la ak laxasaayam ak takkoom ànd ak taalibe yëpp ba tax lu mel nii ñu mën koo sottal kon ñu ngi koy ñaanal bu baax mu yàgg fi te wér barke Borom Touba. di ñaanal bu baax jëwriñ yi magi taalibe yi nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam Serigne Abdou Sarr. sëriñ Samba Gueye sëriñ Sata sëñ Cheikhouna Kane sëñ Mame Balla Touré sëñ Fallou Dia ak sëñ Adama Diop ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm ci seen taxawaay ak seen organisé wu ak melo wu ñu mel ba tax bis bi su ko waa Bérésia xalaatee génne njëkk leen njëkk leen a xalaat ñoom. kon ñu ngi leen di sant bu baax ñoom itam di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala dolli leen a dëgëral ba li yéene ci liggéey bi ci liggéeyu sëriñ bi ñu man koo eggale bu kawe seen jot barke borom Touba. waaye bu ñu leen santee bu baax tamit cant gi day wëlbatikuwaat rek doon ab soññe ci ñoom ni nga xam ne noonu la ko sëñ Bamba Touré waxee léegi. ndax bis bu toll nii ku la ko jox la nga jàppoon ba tax ñu jox la ko war nga caa gën a jàppaat bu baax a baax war a gën a góorgóorlu bu baax a baax ba lu ëpp lii nga man koo am kon bis bi li muy rëy rëy ak cant yi li muy rëy rëy ci waa Wénéto nañ jàpp ne nañ jàpp ne ab tàmbali dong la nañ jàpp ne ab tàmbali dong la waaye doonagu doonagu dara lu am solo ci li nga xam ne moo moo moo leen war kon nag nañ maasewaat laxasaayu waat góorgóorlu bu baax a baax gën a takku gën a dëgër gën ñeme ci li nga xam ne moo nekk ci seen kanam responsabilité yi nga xam ne moo nekk ci seen kanam ci yar seenu njaboot ci taxawu leen yar seeni soxna ci taxawu leen ak liggéeyub Serigne tubaab bi tege ci seen mbagg ñu war ko eggale fu sori nañ góorgóorlu taxawaat ñeme lool ba li nga xam ne nii moom lañ defagul ñu gis ne du dara ci li nga xam ne moo nekk ci seen kanam barkab Serigne Touba. ñi ngi sant daayira maam jaara yi fi teew ñoom ñëpp nga xam ne wérato bi ak lu ko génn ñoom ñëpp teew nañ fi ak seen teewaay bu rafet nga xam ne bis bi su taaroo bu mel nii Eh, seen loxo daf cee nekk te am ci doole bu baax a baax ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen ñaanal suñ borom dëgëral leen te barkeel seenu dund barkeel dund seenu njaboot ba eh, def ci yéen barkeb soxna jaara def ko ci seenu njaboot ba li ngeen yéenee liggéey seenu njaboot lépp suñ borom jàppandi leen ko barke borom Touba gis nañ seen taxawaay xam nañ ko ñu ngi leen ci ñu ngi leen di sant bu baax a baax ginnaaw loolu ñoo ngi sant mboolem daayira yi nga xam ne teew nañ fi te teew fi teewaay bu rafet nga xam ne taxawaay bi waa Brescia am moom lañ am ñoom itam taxawaay bi waa Veneto am ñoom lañ am ñoom itam ca wet yañ féete ba yëg loolu mu ñor leen liggéeyu sëriñ bi ñor leen ba ñu dagg seen yitte ñoom ñëpp ñëw ñu ngi leen di sant bu baax de xam na yëg nañ seenu teewaay te gis na leen gis nañ leen waa xidmatul xadim Touba Treviso ñëw nañ fi ci seen njiit Serigne Khadim Ndiaye ànd ak Serigne Abdoulaye Diaw ak euh, Serigne Jibril Seck ca Pasarella ñu ngi leen di sant bu baax a baax ikraamu rabbi Touba Castel Franco Serigne Abdou Silla ñoom ñëpp ñu ngi fi Serigne Abdou Fall euh, euh, Ravena ñëw na ànd ak mbooloo ak seen délégation gis nañ leen ñu ngi leen sant bu baax a baax sëriñ Xaadim Sill ak sëriñ Fallou Bey Touba Trento ak sëriñ Cheikh Fall ñoom ñëpp gis nañ leen teew nañ fi ñu ngi leen di sant bu baax a baax di ñaan suñ boroom dolli leen a taxaw ñoom ñëpp barkeel seenub dund barkeel seenub liggéey eggale yéene yëpp barke borom Touba ginnaaw loolu nag mbokk yi bis bu toll nii dafa am sabab dafa am loo xam ne moo ko moo tax bis bi am loolu nag lañu war a dellu siwaat ñun ñëpp bàyyi ci xel bu baax a baax euh, technicien yi kon son bi nekk ñu sotofondo ñu dindi ñu toleel ñu dindi ko waaw ñu sotofondo jërëjëf kon bis bu toll nii wuñ fi noonu rek ngir feetu walla ngir daje nii rek mu jeex déedéet waaye bis bi dafa am sabab son bi dañul de allo dafa am soto fondo benn bi benn sikar buy génn. jërëjëf kon bis bi dañ fee daje ngir fàttaliku jàmbaari lislaam Cheikh Mouhamadou Mourtala ci liggéey bu rëy bi nga xam ne moom la def fii ci bitim réew. lépp loo xam ne lislaam am na ko bitim réew lépp loo xam ne yoonu murit am na ko bitim réew nañ ko sant Cheikh Mouhamadou Moutala ci moom la ci moom ci moom la jaare tawfiix yooyu ak xéewal yooyu ci moom la jaare kon nag dana jaadu dana yell mbokki taalibe yépp daje fi ci bis bii tey di ko fàttaliku di ko ñaanal loolu lu ñu war a dëkkeele saasu ne kon benn bis rek tuuti na ci waaye nag am na yeneen bis yu ñu fiy def te doon na koo xam ne mënuñ koo fàtte mukk te kenn du ko fàtte ba abadan kon nag bis bii dafa war a doon loo xam ne dañ ko war a bàyyi xel taalibe yëpp ci réew mi yëpp di ko bàyyi xel xam ne 25 avril saa bu ñëwatee bis la boo xam ne Cheikh Mouhamadou Mourtala moo ko jagoo moom lañuy daje moom la ñuy daje di ko fàttaliku di ko ñaanal di ko defaale tam waajtaayu 8 juin kon loolu benn sabab la ci sabab bis bi beneen sabab ba ca tege tam mooy mbokk yëpp war a bàyyi xel jëmmi bis boobu di 8 juin. di bisu lislaam di bisu yoon wi di bis boo xam ne du kenn ci nun moo ko lijjanti du kenn ci nun moo ko dox moo ko toppatoo ba bis boobu am waaye Cheikh Mouhamadou Mourtala ci boppam moo xam la tax bis bi war a am mu topp ko di ko jaar fa mu ko war a jaar ba bis bi am di mbirum biir moo xam ne ump nañu nun xamuñu ko moom dong moo ko xam toppatoo ko nag ba mu sotti mu teg ko ci suñuy loxo bàyyeenu ko kon day bis boo xam ne suñu bis la ñun ñëpp ñoo ci war a jàpp jàpp ko nañ ko war a jàppee di ko bàyyi xel nañ ko war a bàyyi xel amut benn bis boo xam ne war naa tegu ci kaw bis boobu mboolem bis yi nga xam ne ñoo ko fiy def di ko fi defal suñu bopp suñuy bisi bopp la waaye bis boobu mooy bis bi nga xam ne Serigne Touba ci bopp moo ko fi defal boppam bàyyee ko fi murid yi kon nag loolu nañ ci bàyyi xel ñun ñëpp ba nga xam ne bis boobu saa su jubleetee bu mu doon bisub Brescia bu mu doon bisub Veneto bu mu doon bisub kenn na doon bisub murit yëpp doon bisub jullit yëpp ñenn ñun ñëpp ñu bokk ko waaj waajtaay wa ca war bokk ko taxawu ba ñi joxe woon bis bi xam ne ñiñ ko joxoon xam nañ ko te jàpp nañ ko te fonk nañ ko bu ñu ci jógee nag beneen bis bu ñuy lu ñuy def ñu door koo def te jàpp ko ak fonk ko danañ jox jàpp ndal ci yeneen bis yi nga xam ne ñu ngi koy def kon nag nañ tàmbalee fi nga xam ne fi lañ war a tàmbalee bokk na ci sabab bis bi itam waa Touba Wénéto dañoo fas ci bis bi fédération nationale Touba Italie juddoo fi muy doon mbir mu rëy mbir mu am solo moo xam ne yàgg nañ koo wax di ko yàgg xalaat di ci dox ko wax di ci def ay ndaje ndaje waaye nag ba léegi lañ ci bëgg amaguñ ko te mooy sotteegul te dafa war a sotti nag. li ñu sëriñ Touba jàppandal ci am xel ak xam-xam ak doole joxuñu ko woon rek ngir ñu nar koo jeexal ci ay màggal ak cant ki gàmmoog yeneen ak yeneen waaye dafa am liggéey bu rëy rëy boo xam ne mën nañ ko bu wér kàttanul zahir ak baatin moom la sëriñ Touba def ci nun te ba fii ñu taxaw utiliser guñ ko jariñoo guñ ko lu bare bare lañ mën a liggéey lu rëy rëy lañ mën a liggéey ci suñu dëkk bu sell bee lu rëy rëy lu bare bari lañ mën a liggéeyal lislaam fii ñu nekk te ba léegi nag kàttan looloo sëriñ bi jox ñu ko ñu ngi koy jëfandikoo rek ci togg ko lekk di màggal ak gàmmoo ko cant ak nangam nàngam rek foofu rek lañuy jeexal suñu doole te li nga xam ne nii moom lañu war a liggéey moom lañu war a def ba léegi defaguñ ko kon mbokk yi dafa jot sëkk ñu delloo si waat suñuy xel delloo si waat suñuy xalaat bu baax a baax ci li nga xam ne moom la ñu jox li ñu sëriñ bi jox nañ xam lu mu doon ñu utilise ko ñu jëfandikoo fañ ko war a jëfandikoo jot na sëkk ñu bàyyi ñu delloo si waat suñuy xel kilifa yi fi nekk jëwri ni daayira yi mbokk taalibe yi jot na sëkk ñu xam ne suñ doole yii dañ ko war a boole ngir lii tax sëriñ bi jox ñu ko ñu man ñu mañ ko cee def ñoo ngi jéggalu bu baax li nekk ci suñ xol ak yéene pour ñu wax ko réy na lool waaye temps bi ni mu demee la kon ñoo ngi balu àq bu baax a baax di yem fii lépp loo xam ne des na ci kàddu yi ci nuyoo yi ñu waroon a nuyoo ak ziar yi képp koo xam ne suñ kàddu ñëwul ci yow xëy na suñ xel moo toll noonu rek waaye ñoo ngi jéggalu bu baax a baax yeneen jëwriñ yi ci kanam danañ eggale yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum wa rahmatullahi taala yéen mbokki jullit yi fi teew yépp yéen mbokki taalibe yi fi teew yépp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaare ñu ngi leen di balo àq di leen balaq di jiital ci nuyoo boobu ñu ngi jiital ci nuyoo boobu sëriñ Sidi mbake ak mboolem njabootu sëriñ bi nga xam ne ñoo fi nekk dafa mel ni bu ñu tuddee sëriñ Sidi mbake ni ñu ko doon waxee léegi moom sëriñ Abdoulahi borom dër bi tudd maam Cheikh Anta moom seex Mourtala dafa mel ni dinañu yóbbaale bokki taalibe yi fi nekk yépp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen balu àq di leen balaax di dollee santaat sunu borom bu baax a baax ci jataay bi noonu ko sëriñ Mbàkke waxe ndax loolu ngay wax Basiiru Ja fekke na ko waaye li ëpp ci mbooloo mi ñu àndal fekk na leen fi Seex Murtala yal na ko yàlla fayal yal na yàlla yokki leeram te taas na ci barkeem ñu ngi sant bokk yi nga xam ne ñoom lañu fekk si fii noonu ngeen ko waxee léegi daf ab tàmbali la fi lañu ko tàmbalee waaye la di suñu bëgg-bëgg mooy fépp fu mu mën di doon ci Italie ñu dem ba di fa organiser bis bii loolu mooy sunu yéene yàlla noonu ci yàlla dimbali li ñuy faral di wax nag di wax ni booloo nañu yàlla noonu ci yàlla dimbali ndax seex Saliou Mbacké yàlla na yokk yàlla yokk ay leeram sëriñ Fallou ngi toog keroog bi ñu koy siyaare Cheikh Mourtala daf noo wax ni nu mboolem lu sëriñ Mourtala tegan ci loxo teg ga nga ko xam ne moom la ko sëriñ Murtala tegan ci loxo fedd ne la loola dellu waxaat ni ba ñu koy siyaare te xamal ko ni ko mboolem daayira ya nekk Itaali ñoo àndandoo ñëw di la siyaare Seex Murtala dafa wax ne àndandoo kooku ngeen wax de bu ma nee am moonu gënal kon na xam na nu yombut ndax daf ne bu ma nee am moonu gënal kon li gënal sëriñ bi nañ ci def sunu kem kartan ba mu am yàlla nañ ci yàlla dolli dimbali ci barkeb Touba ak borom Touba. li ngay wax nag ci góor yàlla Cheikh Mourtala yàlla nañ ko yàlla fayal ndax dafa mel ni moom liggéey bi ba mu fiy door a ñëw te di dénk bokki taalibe ñu def ko ci dimbalante la ko tàmbalee woon loolee dox nañ cay at. mu dog indi turu daayira te loolee dafa waxoon ni dee leen dajale ci seeni wërsëg li ngeen di dajale ci seeni wërsëg nag dee leen ci dimbalante waaye bu ma fi ñëw bu ngeen jox ma cib dërëm bu fi keneen ku mel ni man ñëw bu ngeen jox ko cib dërëm kon moom mel na ni fii réew mi toll mel na ni gisan na ko ndax booba mel na ni bariwul fu ñuy gis ci réew mi benn daayira boo xam ni ñetti nit ñu soxlawoo ndimmal ba mu wér ñëpp am na fa te mel na ni ñaari at ci ginnaaw ca gox ba nu féete képp muy Brescia juróom ñaar fukki nit ak ñaar yu aajowoo ndimmal am na fa ñu yëkkati lañu man ngir yàlla jëmmi sëriñ bi dimbalee leen kon moom gisoon na liit démb tey soog a ñëw xëy na du ñu guddal kàddu yi ndax li ñu toog ak moom lépp ak li nga xam ne moom la ñu wax lépp duñu ko mën a détaillé benn par benn waaye dina am mbokkum taalibe mu ñu jox muy sëriñ Modou Mbow am na lu mu ci tënkan jitaay bu mu doon mu ñëw dolli nu koo leeral ndax kat liggéey bii dafa am ay sababi sabab ndax loolu nga wax kër gi nga xam ne moom lañuy wax kër seexal xaddiim ba mu koy digle yegg na ci ni lii ma leen di digal bala ngeen a xam njariñ la ngeen koo am kon mel na ne bu fekkontee ne amul sëriñ sëriñ Fallu mii dee su wax ni sëriñ Fallu yilimaan ca Brescia ndax ñu am fu ñu koy defee mboolem xew-xew yi nga xam ne dafay xew ca senegal te ñu di ko fa def sunu borom dimbali nu bu dee foofa foofa rek lañ koy defee kon loolu lépp ab gis-gisam la lawoon te bëggan bokki taalibe yi àndandoo manqué doomu aadama nag léeg-léeg muy feeñ ci lu baree bari ndax moom de ba mu koy digle dafa waxoon ni na mbooloo mépp fekki bokk ya nekk Brescia ñu amal foofa bérébub lislaam bu ñu ko amalee ba noppi feneen fu mu mën di doon la fa yell ñu def ko fa bu ñu ko melalee na mu war a mel ba noppi bu ñu waxtaanee feneen fu mu doon lafa fa ñu def ko fa kon loolu moom moo doon ay kàddoom yoo xam ni ci tàmbali bi liggéey bi mel na ne bi liggéey bi sotti it sunu borom dogal na màggalu tamxarit la jëkk fanaan ci kër sëriñ Touba ci Brescia fekk ñuy waajal màggalu Cheikh Abdou Khadir fekk na fi sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdou Khadir ci émence yi ngeen di seen mel na ni bu ñu doxee tuuti mën naa am émence bu ca ànd nekk ca mel na ni fii ñu toll nga xam ne mi ngi toll ci fi ñu doon tege xeer wi kon mooy li ñu doon wax léegi ci sëriñ Fallou mii ngir moom day bi ñuy wut te mu mel ni lu jafe ñu wax ni réew mi de amul benn lejj bu génn ci réew mi boo xam ne benn meetar mën ngeen ko fee jënd keroog bi nu ko koy wax ci rongade la daf noo wax ni nu sunu borom góorgóorlu leen ci ndax sunu borom bindul senn suuf soo xam ne du warees na faa taxaw jaamu ko moom foofu la toll won booba kon pour bañ a guddal ñu yox sëriñ Modou mu am lu mu ci dolli sëriñ Modou Mbaw ndax tënk yi nga xam ne jotoon na koo tënk mu ñëw dolli ko ci ndax bu fekkee kenn ku mu doon ku nekk jitaay bi nga amoon ak sëriñ bi danga nga koo bëgg a wax ba mu jeex mel na ne temps bi du nu may loolu kon ñu ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp. bismillaahi rahmaani rahiim. xam nañu ne xol sedd na lool. nun ñu jóge Touba Bresciate gis nañ lu nu waar ndax dañuy faral di wax naan organiser organiser Touba Brescia ñoo ko man waaye nag ndekete woo ay doomu aadama lu ñu ànd rek mu gën a rafet tey jii jàng nañ fi lu bari tey jii gis nañ fi tam richesse bu bari bu war a utiliser ci kanam ndax li sëñ Dame Mbaye wax léegi foofa mooy suñu yéene kon lañu fas yéene moo di 8 juin bii di ñëw incha allah yàlla na ci sama yóbbu lépp lu ñuy def nii nu ko ànde fii lañ koy ànde fee kon mu mel ni li nu gis fii doon na ab am am bu dolliku ci lu nu amoon ñu war ko ñu war koo jëfandikoo am fi lu doy waar nag xale bi jigéen bi doon wax léegi am lu mu wax ñu am luñ ci jub muy wax bu am solo boo xam ne ñun ñëpp ñu fi nekk benn phrase rek laa ci jot muy ñun ñi ñëpp ñi fi nekk di ay waajur lu nu war a ji ma jëfandikoo xale bi dafa wax lan doom yi nu fi am na leen jàngal jàngal leen sunu diine jàngal leen suñu culture balaa ñeneen a jiitu ci ñoom. kon muy wax bu am solo boo xam ni war nañ koo ji ma jëfandikoo ci loolu nag li sëñ Bass doon wax léegi lépp fekk na ko ñu ci bari fekke nañu ko am ay dat rekk yoo xam ne si dañ leen ko bëgg a wax ngir yéen jariñu ci ndax liggéey bi Cheikh Mouhamadou Mourtada doon wax Sëriñ Bamba wax na ko ci intro ci bi muy wax dafa wax ni kër sëriñ Touba gi liggéeyam sëriñ Touba bi tànneef la ca Brescia mu mel ni ci histoire bu ñu dee wax rek sëñ Mourtala dégg nañ ni depuis 1960 ñëwoon na Italie waaye booba li mu fi doon seet si wax nañ ni dox yooyu mu doon dox ba euh, daje na pap bi nekkoon ci jamono yooyu. pôle 6 am na ko ni pôle 6 waaye nag liñ mën a jàpp moo di 1991 ni ko sëñ Bass doon waxee léegi moom lañ njëkk a commencé ñëw nag fekk suñu seet si yi ci loolu mu digle ni na ngeen ànd yéen ñëpp ànd bokk formé daayira xale bi bi mu doon wax léegi dégg naa mu wax ni sëñ Mourtala dafa wax ni réew mu ngeen nekk na ngeen di jëfandikoo na ngeen di wéy ci charte ya waa réew ma di doxe lam ca teg moo di bu yàqul ci seen diine dara loolu moo waral sëñ Mourtala bi mu njëkkee tàmbali dañuy na ngeen ànd ñu bari ñu ngi koy wax formé benn fédération islamique boobu tur yi ñu joxoon bi ñu ko traduire mi ngi nekk fédération des groupes islamiques yi per l'aiuto reciproco et la pratique religieuse dañ ko mën a waxee moo di kon ay jullit yu ànd di dimbalante di pratique seen seen l'islam loolu bi mu nu ko waxee le 20 11 mois 92 lañ ci njëkk a defar benn statut boo xam ni fédération boobu la tuddoon ñu ciy dox li sëñ Dame bay doon wax léegi ñu war koo commencé waat ndax xëy na ñun murid yi dañuy dox ba yàgg nu perdre am loo xam ne dañ koo perdre ci liñ jotoon a def le 21 mai du 21 mai 1993 ba le 31 mai 93 bu ñu ko seetee boobaak léegi am na 22 ans semaine culturelle islamique murid yi ñoo ko fi njëkk a commencé te booba fédération nord bi ñoo ko defoon booba Milan ko seqoon Bergamo Brescia lekko Parma Pavia ak Varese sëñ Sàmbaye ko doon waxtaan kaset yi ñu ci bari dégg nañ ko ak sëriñ Dramé mi nekkoon Paris ak sëriñ Xaadim Sill jamono yooyu euh, euh, ambassadeur Youssouf Bara moo fi nekkoon kon mu mel ni dafa am ay valeurs yoo xam ne dañ ko commencé woon ba pare tegaat ko ci suuf ci loolu kon la ñuy dox ba 1995 sëñ Murtada jóge Rome ci jàngale yi mu daan jàngale keroog bi muy jóge Rome di ñëw Brescia train la dugg. bi mu agsee Brescia foofu dafa am lu ma fa bëgg nettali lu ma leen xamal sëriñ bi fan la tegoon àdduna moom ndax bi mu ñëwee Brescia ñun dañoo dem jël benn hôtel bu ñu wax président hôtel hôtel bi boobu jamono yooyu presque moo gën a luxe ci Brescia keroog suite bi ñu fa doon jël ba ñu ñëwee borom hôtel bi dañu ne yenn ki ngeen di ki ngeen di xaar xam naa ku am solo leen ci yéen ndax néeg bii ngeen di jël de Alberto Tomba nelaw na fi ñu ne ko ah ñun daal li ñuy ki ñu bëggal fii moom leer na nu wuute nag kooku waaye nag la cay mujj moo di dañ faa nekk nun murit yi rek sunu coow sunu dugg ak génn ba yàgg borom hôtel bi ni ah fii de mënatu leen fee nekk da ngeen di wuti beneen ndax yëg beeg wàcc bi dafa ëpp ñu wax ko sëñ bi sëñ bi ne waaw moom de moom ñun fu ñu nekk moom nit ñi dañu fa fekk nu daal di jël beneen ba ca wet ga ca wet ga lool mu tudd hôtel continent biñ fa accès hôtel boobu demewut na bële deme woon waaye lu ci sëñ bi teg ñun yéen a jën ca amoon lépp bi sëñ bi accès ba toog ba noppi dañu waaw fii de moom xanaa moo gën a yomb fee ñu ne ko waaw mu fii sax de moom moo gën ndax fee de daa àdduna lool waaye nag ci loola ca loola tamit dañu caa lépp sëñ Mourtala gis lu bari loo xam ni doomu aadama yi gisaguñu ko ndax foofa de ba ñu fa toogee dafa daal di lépp dafa wax ni wolof day danay wax naan ku ñaan ñàkk waxa moom daaw ko àggale wolof day da wax naan ku ñaan ñàkk daaru jeg ni ko waawaaw xewal ni ko waawaaw boo jëndee am mu ne ko waaw waaw kon boo jëndee am kon mu mel ni sëñ bi xamoon na ni boobu kër sëñ Tuubaa gi dina am ci loolu kon ci 1997 ndax bu ñu dégloo lool sëñ bi daal digle ñaar yoon daa digle ñu tudd fédération des groupes islamiques mu dellu siwaat digle ñu tudd association Cheikh Ahmadou Bamba loolu la ko waral ci même hôtel boobu la sëriñ bi woote daal ni waaw waaw damaa bëggoon de tur woowu ma leen joxoon ngeen jël faf lépp rek def ko ci sëriñ bi ñu ni Mourtala Amar ndax waxi sëñ bi daawul yomba xam Mourtala Amar lu sëñ bi wax mu ni dafa wax ni tur boobu mu leen joxoon génnul beneen tur te tudde ko def lépp ci turu sëriñ bi ñu ni kon dañuy wuti fédération bu tudd fédération Cheikh Ahmadou Bamba bi ñu demee ci notaire bi kon ñu ni kon léegi daal suñu kilifa gi lañ jot mu ne digal ñu ni noo nanu fexe rek ba tur bi moom nekk ci turu Serigne Touba kon loolu moo ci indi association Cheikh Ahmadou Bamba jooju tey mu am beneen xisa nag bu bëgg a dal ndax loolu bu ñu ko tuddee ba noppi kenn ku si nekk euh, réerewul ni après tuuti la xew-xew yi xew Amérique ak fépp damono yooyu fédération euh, gouvernement Berlusconi ni kat dañuy seetlu fédération yi nga xam ni yëpp dañoo nekk ay groupe islamique lépp loo xam ne bind nañ ko wala fu ñu jëlee seen xaalis ak lépp dañ koy saytu pour man cee xam fu ñu koy jëlee ak fu ñu koy dugal waaye yàlla sa keroog ñun ba ñu ñu convoqué inspecteur yi nga xam ne dañ leen a détaché woon Rome directement ñu ñëw Brescia pour loolu bi ñu convoqué bi ñu ñëwee ñu toog ñoom indiwaat statut bi ñu sëriñ bi wax ñu bind ko association si Amadou Bamba bi ñu ñëwee ñu leen ñu ne cette fédération bi la ñuy lijjanti ñu leen ñun suñu kilifa digaloon nañu tuddatuñu loolu léegi association Cheikh Ahmadou Bamba la ñu tudd inspecteur ba dafa daal di wax ni seen sant boobu ñu ne ko waaw mu ni kon amatul benn problème kenn dootu leen wooti fenn kon loolu gis-gis la boo xam ne si itam bokk na ci gis yi nga xam ne ñoom fan sàmm gisoon na ko li sëñ Bass doon wax léegi nag 1992 la ca Genova woote boo xam ni Cheikh Mouhamadou Mourtada moo ko woote ni man kat maa ngi def tournée ci réew mi su ma wëree nag ba noppi na ma mbokki taalibe yëpp fekk su ñu ñëwee Genova dinaa wax ak ñoom fi nga xam ni laa bëgg ñu leen ànd yéen ñëpp boo bu def fa kër sëñ Tuubaa googu su ngeen ko amee ba noppee nag fu ngeen ko am baax na ca Genova kon la waxoon mbokki taalibe yëpp ni leen na ngeen ànd dem Tuubaa Brescia defe ko fa kon loolu moo indi ndigal li nga xam ne si moo indi kër Tuubaa Brescia googu Euh, kër googu tamit niñ ko gisa rek ca Ponte bi ko la nekk mu ngi toll ci 4112 mètres carrés euh, sëñ Xadim Mbay ñoom ma nekk ci kër ga ba léegi ak ñoom sëñ Habib ñoom ñi ak sëñ Dalla Xuma ñoom ñoo xamoon ki nga xam ne si moom moo ko moo moo ko lijjanti woon muy 1997 ci tamit euh, liñ doon wax rek ay wone yoo xam ne sëñ bi dana ko wone kër gi bu nu ko seetee liñ lépp doon dépensé lépp 936 millions la de liir jamono yooyu 936 millions fekk na boobu ñun li ñu dajale lépp 602 millions la 602 millions yi la ko ci indi euh, tubaab bi ci boppam ni kat léegi da ngeen da ngeen koy da ngeen koy matal banque bi ñu ko amoon muy banque euh, San Paolo bu Brescia fekk xaalis bi nga xam ne cinq cent dix mille yi sëñ Mourtala njëkk na joxe foofu lañ ko dugal foofu lañ ko njëkk a déposé moo jiitu ci xaalis boobu ben fa amee million cent yooyu ñoom dañoo wax ni bi ñu demee ba ca biir dañoo wax ni duñu lebal loo xam ne si day jëm ci ak jullit dara ba fekk na kon trois cent millions yi ñu soxla woon pour mattali ko sëñ Tuubaa gi ñoom dañu ne woon duñu ko jox la tax nag ñu am xaalis bi benn tubaab bu ñu wax Pigossi ñëpp xam ne ko mu nekkoon présidence Frélpino moom moo ñëw yóbbu ni ci banque bi ñu amee léegi ni moom kat kon mën naa garantie ni waa waa banque bi ñii loo leen lebal dinañ leen ko fay. borom banque ba ni ñaata moo des ñun ngi ko 300 millions mu ne bu subaa la ngeen am foofu ci xaalis bi leen ko fii ñu jox leen 300 millions kon loolu mooy li nga xam ne si. mooy mbir mi nga xam ne sëriñ bi toujours moo koy euh, defal boppam le 11 septembre 97 nag la ñu jot ci caabi yi muy mbir mu doy waar ban koy ban koy wër doomu sëriñ Fallou lañ àndaloon waaye nag la ca gën a neex gën ma caa neexoon man moo di sëriñ Mbacke Mouhamed lañ njëkk a ziyaare kër sëriñ Touba ñoom lañ fa njëkk a ziyaare sëriñ Góoberu Kebe yàlla na ko samborom dolli leer moo ko njëkk a def cant 31 décembre ñëw ca ca même at ma 31 décembre ñëw Cheikh Modou Kara euh, def fa wooteem bu rëy ba ba ñëpp xam euh, ci loolu tamit benn kii rek bu ñu leen bëgg a nettali bala ñoo joxe kàddu bi ndax sëñ Abib Gaye mi teeroo nag li sëñ Bamba doon wax léegi naan Touba euh, tubaa Brescia ab lu ñu lu ñu sàkku la sëriñ bi ci boppam dafa jaar Pisa 1998 boobu lay war a njëkk a ñëw ci kër gi tombé ak tam xarit li ko sëñ Bass doon waxe léegi muy le 4 mai 1998 sëñ Mourtala jaar Pisa jóge fa le 5 bu jóge fa ñëw Brescia ba mu jaaree Pisa dafa am lu mu bëggoon a bind ba gën ba gën ñu bind ko Sida mu wax ni nañ ko waral daa ñu wër Pisa gépp gisuñu daa sëñ Habib Gaye ci boppam fekk at mooma avant muy jógee Sénégal xelam dem na ci ni moom daal kër sëñ Touba gi war na faa war na faa sàkku daa mu wut fa daa yu si bari xamaloon na ko boppam gisaloon na ko boppam ci kaset yi laa bëgg fii traduire bu ngeen xoolee ci ka ci kii ngeen ko gis mu ni ko nu ñu koy bindee mu génn ca yooyu jënd ab copie jox ko mu ni ko ko dinañ ko étudier seet ko ànd ko ak ñoom sëñ Habib Gaye ñoom ak sëñum Talla Xuma ba ñu décrété bis boobu muy 8 juin 8 juin boobu tam beneen mbir dinaa ko ci waxaat loo xam ne sëñ Mourtala ay mbiram moo demee noonu am na benn accessoire bu nekkoon ca commune ba bi ñu toogee ay at lañu mujj woowaat ñu toog ak ñoom ñoo ca commune ba ci boppam mu mu jaaxal moo di keroog ba may signé ci acte bi pour ñu décréter 8 bi xaw ma lan la signé bu doon tey jii du ma ko signé loolu ñun ñoo ngi toog ñu xam ni kon moom loolee ba mu ko doon signé xamatu ko woon yëf yi nag bari na waaye nag temps bi moom xaw naa gàtt kon ñu leen di yamal foofu rek di jégglu nag dañ leen a bëggoon a baaxee yooyu rek pour mbokk yi fi yi fekkewut woon ñi nga xam ne si tey jii fàtte woon nañu ñu fàtte leen wasalaamu ñu fàttali leen rahmatullahi taala wa barakatuhu ah astafurlah ngeen jéggal ma rek hmm, dëgg la li sëñ Njóogu Njongo wax sëñ Mourtala ci bis boobu ñu doon wax bi mu laajee daaje aussi dafa wax ne sëñ Habib Gaye ngi nii toog waa kër gi ndax yéen a ngi fendee njàng alxuraan sëñ Habib ni ko waaw sëñ kii jatara fekk na ko sëñ Sam jatara ndax kër yéen a ngi fi jàng alxuraan sëñ Habib ni ko waaw mu ne nu ngeen koy defee mu ne ko dañuy def gaaw bu nekk de ñu jàng ko fi mu ne ko lu leen déedéet kon léegi da ngeen ko soppi sëñ saam jatara ni ko nu ñu koy defee mu ne ko dangeen di fexe ba dimanche bu jot nañ fi jàng ñetti kaamil ñetti kaamil yooyu la ñu fay jàng leneen liñ ci topp mu dem seede boo xam ne si Paris lañ ko sëriñ bi waxee sëñ Habib Gaye sëñ Abdou sëñ Abdou Khadir Gaye Ndiogu Ndongo danoo dem Paris dem di ko réclamer naan ko ñun dey légiste yi dañoo sonal muy muy politique politiciens yu bees yi fa nekk yoo xam ne bëgguñoo gis ci étranger yi dara bëgguñoo gis ci jullit yi dara sëriñ bi ni waaw ñoom ne moom lislaam rek lañu ñu bañ waaye dinañ xam ne suuf sépp suufu si yàlla loolu tamit sëriñ bi jot na ko faa def gis ngeen jumaa ji fi def daal di ca teg ne ñetti waaye ñetti kaamil yooyu ma leen digaloon ngeen koy jàng de li fiig ñu koy jàng duñ leen mënal dara kon looloo taxit mbokk yi nga xam ne si ñoom ña nga fa ña nga ciy gën a góor lu baax teg na fa tegu xeer gis ngeen ko leneen la sa topp nag mooy solidarité solidarité bi nga xam ne sëñ bi dina ko wax muy ndimbalante ci suñu biir du caagee nag dama koy wax nga ndax kenn naan waa Brescia la ñu fi wax wala chiffres yi ñu fi indi wala leneen déedéet loolu tax ñoo jóg li ñu tax a jóg moo di wax loo xam ni exemple lay doon pour mu pour murid yëpp bokk ci pour jullit yëpp donc bokk ko ndax looloo jullit yëpp lañ koy def lañ koy defal depuis 2009 Brescia dañ fa créé benn social social boobu yamul ci murit yi rek képp koo xam ne bëgg dégg nga ko te di jullit bokk nga ca 2009 ba tey nag li ñu ci seet moo di li nga xam ne si dimbaleen nañ ko ay mbokki jullit ak ñi nga xam ne si par exemple wàcc nañ fa ab liggéey ñu yóbbu leen Touba ndax fasatuñu yéene kenn ku fa wàcc ab liggéey ñu lay wërali mbuus di la yóbbu ku euro ngay joxe di teg ci kër Serigne Touba gi diggante 2009 ak léegi dépensé nañ ci 137 mille 137 mille 583 euros loo xam ne si bu nu xoolee ñun ñi nga xam si si dañuy yëngu ci réew mi yëpp ci syndicat yi ak yooyu gisuñu fi benn organisation bu fi dimbalee mbooloom lu toll nii kon nag nañ leen ci góor góorlu ci dimbalante googu te gën a góor góorgóorlu ci ànd ci ci fédération yi gën a góor góorgóorlu ci ànd ci daay ci ci ci liggéey bi Touba Veneto nag dootuñu wax ni ko sëñ bi waxee léegi Touba Veneto Touba Brescia waaye fédération yi moom ànd nañu te fas yéene nañoo ànd ak yéen liggéey ngir jëmi sëriñ Touba wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu Diamo anche Dico assalamu alaikum. Ovunque siamo, soprattutto in questa giornata di commemorazione di una grandissima persona. bi di una delle nostre de delle associazioni religiose che hanno portato a oggi, che è un simbolo nel senso che, la giornata rappresenta la giornata di liberazione dell'Italia. Giornata non potrebbe essere più grande per quel paese e perciò essendo anche e vivendo in un paese di fede perché consideriamo tutta la gente del Libano come i nostri fratelli, che siano musulmani, cristiani e anche ebrei, perché crediamo tutti allo stesso Dio. E noi, come ce l'ha insegnato il Sheikh Murtada, impariamo a pregare Dio après gars

day wax ne waxtaane yàlla ki gaayam yiw wunit nit masa am xamal ne kat ca la juddoo yow murit bi yëgal waxtaane duniyaa ki gaayam ay wu masa am xamal ne kat ca la juddoo yow murit bi dawal sëñ Musaa Ka yi di wax ne ngir gaayu baax yi xamle leen ak wane leen dana waral seeni saxaaba roy leen kon waxtaane wàllu yu loolu rek lay jariñ te alquran daf ñoo digal ñuy waxtaanee gaa yu baax yi ndax mbaax gi nekkoon si ñoom ñu mën koo roy ulaayika lazina hadahumullahu fa bi hudahum muqtadi loolu kon lay jariñ te Cheikh Mouhamadou Mourtada eh, dafa nekkoon jëmm joo xam ne nii eh, ku naqare waxtaanee la naqare waxtaane gi mooy ku suñ borom nëbbu mbiram la waaye moom tamit ku nëbbaloon boppam mbiram la ci nëbbu googu ba tax na li muy am lépp ci ay maqaama ak i daraja ak li daan rëcc ci moom di feeñ boo ko ci masaana tudd dara day wax ne waa waaye nag li am yàlla rek mooy li am solo rek mooy sàkku ngërëmal sunu borom ba tax na am na bindkat bu wax ndax sax ne wa kathiran ma kaana cheikh mohamad al muqtada yaqul euh, inna xayran yatlubuhu al insanu fi hasihi al faniya euh, huwa ridwanullahi taala moom Mamadou Mourtala li gënoon a bëri ci ay waxam mooy li ëpp solo ci lu nit di sàkku ci àdduna ji nga xam ne day jeex mooy sàkku ngërëmul sun borom bi nga xam ne nii du jeex mukk te alxuraan moo ko wax ne wa ridwaanu euh, minallahi akbar kon nag Cheikh Mouhamadou Mourtada dafa nekkoon jëmm joo xam ne nii buñ ne doomi Serigne Touba la googa wet moom daanaka du jar sax di commentaire waaye tamit li alxuraan wax ne du wal baladu tayyibu yaxruju nabatuhu bi isni rabbi euh, jiw woo xam ne ni da ko koo ji te am te meññet da ngay fekk suuf su nangu nga ji ko ca loolu mooy waral léeg-léeg bu ñuy waxtaanee Cheikh Mamadou Mourtada ñuy gën a jublu ci wàllu way juram wu jigéen nga maanaam jëmm joo xam ne nii buñ ci waxee tuuti dara da nga xam ne nii kat kii yaakaar naa ne fa nga xamee ne nii fa la ko sun borom tànnee ci Seexul Xadim ak ca soxna soose yaakaar naa nii rek maanaam nii rek lay war a mel Cheikh Mamadou mi ngi gane àdduna am na ñu ne 1924 waaye 1921 ji man ci laa ànd ndax li tax ma ànd ci ñetti firnde la benn bu njëkk bi mooy Cheikh Mouhamadou Mourtada du caatum mi nga xam ne nii moom lañ tuddee Cheikh Ahmadoul Mokhtarum Daaru Xudus mi yàlla na fi yàgg ti kon nag bu fekkee ne 24 la te Serigne bi dem 27 ci lu logique ñetti at euh, mu am ci ñaari tofa yooyu loolu moo tax ma yaakaar ne 21 ji moo gën a wér beneen ba ci des itam Cheikh Mouhamadou Mourtada daana nettali lu mu gàtt gàtt ay baat yoo xam ne ni Serigne Touba waxoon na ko ko mu xàmmee dégg bi màggee tamit baat yooyu mu di ko jëfandikoo di ko di ci bàyyi xel. ma yaakaar ne tamit ku toll ci ñetti at waxewuma nag ci baatin damay waxee ci xel euh, dana dana jafe muy jàpp xeeti baat yooyu di ko bu màggee di ci bàyyi xel bu baax a baax kon mel na ni baat ya ko Serigne Touba doon wax booba fekk na lu mu néew néew mu xàmmee beneen ba tamit ñun ñi yaroo ci ak keppaaram daanañu liggéey loolu di ñu yónni te la ma gisoon ci ay kayitam nga xam ne nii moom daa daanañu liggéey loo liggéey boo xam ne faaw mu jox la lu aju ci wàllu copie carte d'identité wala dara le premier janvier moo ci nekk kon damaa yaakaar ne 21 jooju xëy na mooy gën a wér bu dee ci weeru wolof mi ngi gane adduna ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru gàmmu ci atum masusin 1340 ci euh, dëkk bu ñu wax daarul alimul xabir te léegi ñu koy wooyee ndaam daarul alimul xabir Serigne Touba moo ko sancoon gannaaw ba mu sancee Touba ba mu am ñetti at ndax Touba 1888 la ko sanc 1891 mu sanc Daarul Alimul Xabir teg fa sëriñ Dame Abdourahmane Lo muy jàngale kon mm, léegi lañ koy woowee ndaam ngir la fa sëñ daam dëkk dégg naa sëriñ bi sax daana ci tooñ sëñ daam naa ko yéen daal xam naa doy ngeen war mag mu sañc dëkkam ngeen fexe ba soppi tur ba jëmee ko ci seen bopp foofu lekkoon kon la àdduna ci soxna su tedd su baax soo xam ne nii ñu ngi ko doon woowee soxna Fatima Diop maanaam ñu koy wax soxna Fat Tuuti la tuddoon soxna Fat Tuuti ku ñuy wax ma Madoun Samba moo doonoon way juram mu doonoon soxna su tedd di soxna su baax di soxna su ragal yàlla di soxna soo xam ne nii mokkaloon na alquran mokkal gu wér a wér ba bind ko te booba bi muy jàng alquran di ko bind nekk ndaw booba mi ngi ci ron seexul xadim seexul xadim jox ko sëñ daam abdurahmaan loo ngir mu di ko jàngal alquran ba tax na ci biir jàngum alquran moomu dem na ba bind lu mat juróomi kaamil te loolu néew na góor guy bind juróomi kaamil waxuma la ak jigéen te booba euh, mi ngi ci ron seexul xadim wayam woowu muy muy muy muy muy way waa kër Sëriñ Tuubaa di wax ne euh, fa ummuna tuuti bi kat bi ramadan fii laylatil jumuati mawtuha saban qad katabat bi yadiha masahifa tuaddu xamsatan turaki arifa li xayriha min jumlati niswani tihil masiyati min asudani di wax ne suñu yaay soxna tuuti euh, mi ngi faatu ci guddik aljuma ci weeru koor bindoon na nag lu mat juróomi kaamil waaye nag loolu dañ ciy jëlee rek ngëneel li nga xam ne ne suñu defal na ko sudan xiddaan maanaam nit ñu ñuul ñi rawatina ñi àndoon ak Serigne Touba te doonoon ay soxna waaye loolu doyu ca am na doomam bu jigéen boo xam ne ni moo magoon Cheikh Mamadou Mourtada ñu koy wax soxna Diop Mbacké moom tamit bindoon na lu mat ñeenti kaamil te soxna si nga xam ne ni mooy waajuram di waajur Cheikh Mamadou Mourtada moo ko soññu taxawu ko jàngal ko alxuraan ba mokkal ba mbind lu ñeenti kaamil moo tax Cheikh Mamadou Lamine Diop tegaat te ne wa bintuha soxna xafat xaa salakat fa katabat arbaxatan lakin wafat kon nag da xam ne kon Cheikh Mamadou Mourtada ci environnement bi la génnee Madoune Samba Diop mi ma wax léegi euh, ku ñuy wax Samba Mariama moo ko juróon Samba Mariama nag dafa nekkoon shahid maanaam koo xam dañ koo rey ci lislaam ci geeru euh, Ahmadou Seexu Ba doomi Maba Jaxu Ba dafa euh, ay soldaaram ñoo ko fekk ci ron garab joteeg moom ci ay jote yoo xam ne yu néew la ba rey ko biñ ko rayee ci yoor yoor gi dem ba takkusaan ñu dëppaat fekk ker giñ ko rayee ker ga toxuwut maanaam ker gi ngir wormaal jëmm jooju moo tax dañoo fekk ker ga tàkkusaan waaye fa keroog garab ba fa mu nekkoon ci suba fa lañ ko fekk mu tiim néew ba ñoo xam ne kon ñoom def nañ juumte ndax kii ñu rey xam nañ ne nitu yàlla la kooku dañ ciy déggee ne kon environnement fi mu yaroo yaakaar naa kon noonu rek lay lay lay lay mën a mel kon xam naa côté boobu dañ koy dañ koy dañ koy tënk ndax xam naa du waxtu bi comme ni ma ko waxee léegi waaye liñ ci barkeelu tuuti rek mooy lu demee ni wàllu jaar-jaaram ci wàllu njàngam Cheikh Mouhamadou Mourtada 1927 bi fi sëriñ bi jógee Cheikh Moustapha moo nekkoon Cheikhul Khadim ci kaw suuf moo ko daal di récupéré ak mbooleem waa kër sëriñ Touba yi nga xam ne ni seeni at bëreegun woon Cheikh Maoud Moustapha it moo amoon volonté pour di leen jàngalal boppam alxuraan waaye boobu xilaafa gi ak jot gi ak jotadi gi mayu ko ko moo tax mu yóbbu ko ci nijaayu boppam ju ñuy wax euh, Cheikh Makhtar Alelo ci dëkkam bu ñuy wax Tindoodi ngir ma ko fay jàngal alquran ba mu fa demee tamit am na fa lu mat juróom-ñaari at waaye boobu njàngam taxut mu a ubbeekoo noonu ba mu fa amee juróom-ñaari at 1934 la delluwaat ndaam ci sëñ Ndaam Abdourahmane Lo fa la mootalee njàngam wax na ne ba mu fa demee diir bu gàtt ñaari at ci la ko yàlla ubbi mu mokkal alquran mokkalin woo xam ne nii bu yéeme la bi mokkalee alquran kër sëñ Ndaam it dafa dellusiwaat kër Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha di ko jàngalal sëñ Aliou euh, euh, ak ak moog sëñ Aliou ak jeneen doom yi ñuy wax sëñ Mahmadan Xarilo Cheikh Moustapha jàngal na leen lu mat mm, ay téere yu gàtt ci téere yi ñuy tàmbalee ay tasawu di saxaar ak yu demee noonu waaye booba itam ni ma waxi léegi rek jot gi mayu ko ko ba tax na njàng ma taxul mu gaaw loolu ci la Cheikh Mahamad Moutala tuxoo nag dem dëkk bu ñuy wax Touba Kayal euh, soriwut noonu Mbàkke ci Cheikh Mahamad Lamine Diop Dagana ngir dafa mottalee njàngum mm, xam-xamam ndax boobu fekkoon na mu wattu mu wattu waaye ba fa nekkee itam yàlla dimbale woon na ko nit ñi di jógee Touba di ko wut si ba ba mu tàmbali am lu mel ni barke ba am otoog yooyu gannaaw bi mu daal di bàyyi xel ne lii kat boo demee day gàllankooru àdduna nga xam ne nii ba muy laxasee mm, Touba Kayal di dem Mauritanie di jàngi fekk na mu amoon ak otoog lépp waaye da ko fa da ko wan gannaaw ak mbooloom ak yëpp daal di ko jàppee moom gàllankoor boo xam ne da koy gàllankoor ci wàllu adduna ak ci wàllu sakku ji xam-xam ci la demee Mauritanie euh, comme ni ma ko waxee léegi. bam mu fa demee tamit fekk fa taalibeb Serigne Touba bu ñuy wax Cheikh Abou na di taalibeb Serigne Touba naar bu baax di waliyu di sharif ba mu demee mu mu mu yéem ko lool teg ko foo xam ne nii fu kawe kawe la. boole kook ñaari doomam di leen di leen boole di leen jàngal xam-xam waaye Cheikh Abou Madiana nee na li ma gën a géndee ci géndee ko ci Cheikh Mouhamadou Mourtada mooy copier gi mu copier Serigne Touba nga xam ne Serigne Touba muy taxaw la da ko niru ci julli yu bari niru ko ci woor niru ko ci taqwallah niru ko ci jokk mbokk niru ko ci bari njariñ te du lor kenn ba tax na bu guddi masaana jot comme ni ko Serigne Touba waxee ci eh, xoqal bu kaaw di wax gaa yu baax yi kaanoo isal laylu qaamoo siraan li ihyaa du junnaati noonu Seex Mamadu Murtada daf koy an dund bu guddi jotee day fanaanee naafila Qur'aan ba tax na ñaari doomam yooyu ñuy wax Seex Yaquub ñaari doomam yooyu ñuy wax Seex Yaquub euh, moom la bokk sëñ waa damaa bëgg laaj addis. ñuy continuer waaye ñu ngi leen di ñaanit ndax ni ko sëñ Fallou waxee léegi moo ñu dal ñun ñëpp bu fekkoon ne junni lañu waajal juróomi sax duñ ko waxuñu ko. gannaaw xoju fi nag xoju fi rek kon bu fekkee waxtu bi jot na itam ba léegi maris na ko yemale fii ba ah ba ba sunu borom mayaat ñu beneen fursa ñu dajawaat waaye Cheikh Maodo Mourtada géej la bi mu nekkee waaw waaw kon boog mel na ni mbokk yi nee waxtu bi jot na foofu tamit li ma ciy soññee di ci soññ suñu mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yi mooy li li ma dal maag sëñ Fallou li ma dal maag sëñ Fallou bari na ñu muy dal ñu bëgg nag saa boo xam ne ni jataay yu mel yu mel nii amati na népp noo xam ne ni mënees na ko waajale ak mënees na ko taxawoo ba message yi nga xam ne ni message yi li waral bis bi la war a mën a jàll loolu nañ ci bàyyi xel ndax bis yi saa bu ñëwee ñun dañ ñuy sonal muy sëñ Fallou di keneen dama koy wax rek nekkul ne nag fii ma toog moo tax ma koy wax waaye day njàmbat loo xam ne man sax maa ngi ci biir saa bu ñu dajee ci bis yi lu mel nii dañuy dal dafa am ñuy dugal yu bari yoo xam ne nii la muy jël ci temps conférencier bi sax jëlu ko te loolu lépp kenn waajalu ko te loolu itam mëneesut ne wax la joo xam ne nii moo fi andi nit ñi kon li am li andi nit ñi nga xam ne nii moom nga leen woowee bana nangam lañ fay wax waxtu woo waxtu bu nekk nañ ci bàyyi xel ba ñi nga xam ne nii sonal wax nga leen ñu waajal nangam buñ ñëwee buñ mënta am lépp it nga jox leen ci xam ne nii message bi lu mu néew néew dana am lu ci jàll wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu